ba moom moom Lamine Golo numéro 2 jóge Géejawaay moog caatu Lazio attention da ngay xeex eh attention eh Lazio lu muy def ni jàpp na ko jàppante nañ da ngay doon ca suuf ñaari mbër yi attention KO Lazio Lamine Golo da ngay doon Golo Lazio attention attention KO Lazio Lamine Golo Lazio Lamine Golo ñaar eh, mosante dégg nga supporters yi noonu ndeysaan Lazio Lamine Golo Lazio ak Lamine Golo dañoo mosante ñoom ñaar attention jam na ko gauche Lamine Golo jam na ko gauche mais dafa mel ni Lazio jàppante bi la bëgg Lazio Lamine Golo attention eh attention attention da ngay jàppante Lazio ma ngay rokkas te suuf Lazio Lamine Golo ma ngay jàpp ca téere ya attention ma ngay door attention Lamine ma ngay door ah ma ngay door ca fàmb ya ma ngay door ca fàmb ya ma ngay door Lamine Golo ngay door ah ma nga jàpp Lazio nga jàpp fa ma jàpp da nga supporter ya ngay tàcc Lamine Golo la si attention mu ngi koy faxat attention eh eh da ngay doonante ñoom ñaar ah, na supporter yi daf leen dang nee na supporter yi daf leen dang arbitre bi sifflé waat na Lamine Golo ak moo leen wan ginnaaw yor ngemb lu bëri nekk écurie Soumbédioune moog Lamine Golo attention le Zio sànni na ko gauche sànni na ko gauche le Zio ak Lamine Golo le Zio ak Lamine attention eh, le Zio moytu dinañ la door nga daanu. Légion Lamine Golo ndeysaan maa ngi nuyu sama waaja Pape Sène borom géroo Pape Sène Pape Sène xam nga sama xel mi yëpp ak les ma nga xam nga liggéey bi yaa ma fi yónni attention Légion jàpp na ko Légion jàpp na ko attention mu ngi koy fàq mu ngi koy fàq Golo na ko bëggoon jaxabal Lazio Lamine ko attention Lazio ak Lamine ko la da ngay bëre ci suuf da ngay bëre ci suuf ñoom ñaar da ngay ah Assaini da ngi noonu sama waa ñi attention Lazio Lazio Lamine ko la attention mbaru niinoo bi attention mbaru niinoo bi mbaru ñoom biram bi ah, ay ñoom biram bi mbaru ñoom mbaru niinoo ay mbaru ñoom Kumba Gay bi mbaru ñoom Kumba Gay bi mbaru niinoo bi moo yor ngemb lu bëlali moo tudda boppam la sio e attention fàq nañ ko ay waay war nañ ko ndomb ay waay war nañ ndomb mbaru niinoo bi ay waay war nañ ndomb mbaru niinoo bi ay waay war nañ ko ndomb attention trop rapide ay ah, arbitre foofu amul arbitre arbitre foofu amul arbitre foofu amul arbitre foofu amul avertissement arbitre boobu amul avertissement eh mbaru niinoo bi ay waay mbaru niinoo bi ay waay Lazio ay waay sunu mbër bi waay sëriñ ki sunu mbër la waay sëriñ waay sëriñ réeru sunu mbër la waay sëriñ kii réeru waay sunu mbër la waay waay sunu mbër la waay borom ngemblu bële sunu mbër la arbitre mi-temps aja ma ko waxal moom ma ko waxal ak moom ay waay ma ko waxal moom ay waay dafa topp supporter ay waay la si yow bàyyi supporter yi xalal lii noo kee la tuddee boppam maanaam lakas bu zone bële maanaam lakas bu zone la tuddee boppam ndeysaan ndeysaan nii noo la tuddee boppam mbaru waay torondoo daa fort eh, na ñëw nii balaa police yi di ko yëgal torondoo daa fort ma ko waxal ak moom waaw eh, ndeysaan ma xaw nga yëngal loxo ya na concentré wu bàyyi supporter yi ndeysaan aca ma moom mbaru Kumba Gey bi asa biram ndeysaan ndeysaan las yooyu noonu di ji réew ndeysaan mbaru niinoo bi ndeysaan trondoo daa fort ndeysaan jeex na jeex na jeex na waa jeex na man na. ndeysaan Makhouba ngay fi gis naa Bathie Seras daa fort. Daga Thiam ñëw na Bathie Seras ñëw na. ayca mu ngi noonu. Bathie Seras numéro 2 Daga Thiam. Daga Thiam Daga Thiam Daga Thiam. lu la yàlla may Daga Thiam xoolal ma ko sa ndey ndeysaan mi temps la bëri nañ cinq minutes bëri nañu cinq minutes arit baa ngi noonu di ko seet moom Lazio Lazio moo ko Lamine Golo numéro 2 arbitre baa ngi nuy wax ak ñoom li làmba nangu ak li làmba bañ ah, amul dóor ci ndong ah, amul gajj amul luxi amul matt ama ah, ngay ñandu El Hadj yoo ngay bi sifle waat Lamine Golo ak El Hadj Golo ak El Lamine Golo ak Lazio Lamine Golo nga ko topp attaque Lazio moytuwul sa kanam gi ni nga ko sa kanam gi wóorul Lazio moytuwul mbaru niinoo bi ndeysaan da ko jox ay hamburger jox koy shawarma jox koy puuj paaj attention songoon nañ ñoom ñaar songoon nañ ñoom ñaar da ngay jàppante Lazio ak Lamine Golo Lazio ak Lamine Golo Lazio ma ngay door ca suuf attention eh attention Lazio jàppal ah rëpp na rëpp na ca suuf attention attention war na ko ndóobu daan na ko daan na